Ousmane Sonko sax euh, gisoon nañ ko mu am lu ñu ci waxee euh, digganteem ak euh, rajo télévision sénégalaise ba ba mu jëlee sax micro bi daa di ko teggi loolu d'abord acte boobu na ko qualifié yow. en tant que taskatu xibaar c'est un c'est un acte mo incidence la xam nga lan mooy incidence. Mm-hmm. mooy nga accumuler ay affaires yu bëri mu jékki-jékki am conséquence. nan nga mën a comprendre. 2012 ba 2020 opposition du toog biir RTS. yow loolu noo ko jàngatee yow. Hmm. rajo télévision 2012 sénégalaise. lu daan na am auparavant non non xaaral. rajo télévision sénégalaise. wala office de radio télévision du Sénégal. créé en 1972. Hmm. au temps de Senghor Diouf Abdoulaye Wade un temps soit peu l'opposition a un petit mot même bu dee tuuti Racine Talla vient dire moom opposition du toog plateau. Assane moo wax loolu moom. Euh, sur le grand jury. opposition toog plateau. non <laughs> waaw léegi léegi léegi saa déglu ma rek. de 2012 à 2020 22 opposition amul parole loolu noo koy jàngatee aw. léegi yow campagne électorale boo xam ni opposition bi dafa fay sax quinze millions bu fay loon quinze millions doo ko tàll micro mooy caution ba. nga taal ko micro filmer ko fekk ko à la Ziguinchor le maire de Ziguinchor cérémonie officielle 4 avril. ah gis nga filmer ko tegoo ko nga filmer ko tegoo ko. waaye teg nga say officiel teg nga ñeneen. bañ koy installé RTS tegoon na ko bañ koy installé euh, au niveau de la mairie. je de du 4 avril. voilà mhm. léegi baa ñëwee tey fii yor sa micro d'abord c'était communicant. sur le plan de la stratégie de com c'était excellent xam nga wax naa la sànq ne la bu doon ca communication ba par rapport à une partie de mm-hmm. l'opposition wax la ne sur le plan stratégique de com j'étais pas d'accord quand bien même que revenir naa sur erreur bi aar defoon au départ de com ñoom tamit mm-hmm. mu juraat encore cette réplique là mu nekk réplique contre réplique ma lay wax ne la mm-hmm. noonu ma ñàkkee d'accord si loolu à un certain niveau relativement Mmh. mais la super a apprécié l'acte la RTS. Mmh. c'était de la communication. et il fallait communiquer. mais mais dénoncé woo da nga koy dénoncé woo. non je dénonce rien du tout. par rapport au micro de RTS. ñun RTS ñoo jàngal diggante groupe sud comme la ak RTS. mais par rapport liberté de la presse quand même. maanaam je ne la cet acte là était te am na ñu nekk biir RTS ñu ci ànd dañ ko dul wax. biir RTS. ñu ci ànd. ñu ànd ci loolu. te duñ ko wax loolu Ousmane Sonko ko wax loolu foo teg boo wax loolu yow. xam ah fi ñu ko teg biir RTS nekk agent RTS. ñu ci ànd xamal lu tax ñu ànd ci. non sonn ñoom seen bopp ils sont embrigadés dañoo mel ni ñu nekk prison les agents de la RTS je donnerai toujours l'exemple d'un journaliste que j'adore personnellement et que je respecte un bon ami une bonne personne hyper l'un des plus corrects moo nu gën a correct mhm. Oumar Gningue mhm. l'un des meilleurs il fait de la production point de vue ma mhm. juumul ah def dimanche bi émission d'ailleurs mais kan moo fa mës a gis opposant pourtant Oumar Gningue à Walfadjri invité tout le monde y a problème waaw loolu yéen yéen yéen ñëpp ngeen gis loolu ma jël micro bi teg nii pour communiquer dessus pour dénoncer ça ngeen ne loolu lu ngay jël micro bi sànni et après man nga baal ma terme bi je sens de la haute fumisterie dans ce pays là. mais gis nañu ay journalistes sax yu yu ko dénoncé quand ñoo dénoncé. di nga xamoon Ousmane Sonko def jàpp nañ loolu. méngoowul ak liberté de la ku nekk am nga sa xalaat waaye man dama lay wax ne la yi weesuwul gis loolu ne pat waxoo ci ma jël micro teg nga ciy wax